ñooñu yor njàng bi dañ ko yeew sëriñ bi ne ñu yeew ko te déglu ñuy jàng sëriñ bi ne ñu yeew ko te déglu am murit bu duggee kàddu da koy jëfe nee na ginnaaw boole ñi daan ñoom boole ñi daan topp ci alxuraan ji ñëwuñu léegi bu ñuy jàngee alxuraan dañuy tàmbali waxtaan wi bu ko defee sëriñ tubaa seen daldi jël kàddu nee na man mii maay tëjee fii bu sëriñ tubaa seen waxee li muy wax ba noppi ñu su ko defee ñu tàmbali nuyoo bi tuuti nuyoo bi nag ñi ne fii ci kees gi penc mii. nee na ñoom sëriñ bi nee ñoom lay njëkk a yawi ba fii féex su ko defee ñuy indi fële par ab lim ñuy saafonte buñ noppee bu ko defee ñoom ñu jàll nee ñeneen ñëw loolu buñ ko defee rek bu ko defee dana jaar yoon du am benn jalaw jalaw te nag sëriñ bi nee na li biig rek nee na moom rek lay waxaat ak màggal du jalaw jalaw bis bii nga xam ne sëriñ tuuba moo ko wooteel boppam rëy na lool kon nag ku ci ñëw bàyyi si yitte yépp na nga xam ne man nga fee jële ak defaru ci àdduna ak àllaaxira moo tax ku ne fa nga nekk bu fekkee man ngaa jàng alxuraan nga jàng ko bu fekkee man nga xasaayit nga jàng ko bu fekkee man ngaa yor sa kurus du wérd nga yor ko yooyu yëpp nag boo ci mënul dara nag nga toog toog bu yaru to teewlu bis bi bu baax di ñaan say ajo ak ay tiyaabo nga jële ko fi te dal ñi nga xam ne ñi ngi jàng alquran ak ñiy waxtaan nga di leen déglu te may leen nga may leen ñu mën a def li ñu nekk bu ko defee ñu mën koo def defin bu rafet nee na loolu rek la kon nag nañ topp ci kàddu yu sëriñ bi rek jëratul jaawale ñëpp dégg nañ li wax kon sëñ Basiiru Kan yaak sëñ Madine bisimilah.